ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال jële nañ ci suñu sang anas doomi malik yal na yàlla gërëm ko mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonentu alayhi salaatu wassalaam wax na ne adducaau laa yuraddu bayna al adaani wal iqaamati adducaau ñaan laa yuraddu duñ ko delloo deesu ko rejeté baynal adhaani su fekkee dees koo tàbbal diggante nodd wal ak liqaam diggante fi ñuy noddee julli ba fi ñuy liqaamee yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne loo ñaan sama borom nangu ko qaalu saxaaba yi laaj ko fa maada naqul mu lu ñuy ñaan yaa rasulallah wax ñu lu ñuy wax yow mi yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne salullaha alaafiyata ñaanan leen yàlla well being jàmmi biir ak biti fi dunya ci àdduna wal axirati ak amul dara dara dara lu féete kaw gannaaw gëm yàlla ak wóolu ko jàmmi biir biti wala sax nga wax ne jàmmi biir ak biti yóbbaale na gëm yàlla ak wóolu ko rawaahu tirmidi xadis ji imaam tirmidi moo ko solo yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñuy wan ni ñaan amee solo waaye jamono yi nga xam ne it des leena tànn ñuy yi ñaan bu ñuy waajal benn ci yooyu mu tudd ko bu ñuy waajal li gën a ci jaamu yàlla yi gannaaw shahaada muy julli mi ngi lay invité jullit bi ngay toppatoo waxtu julli di dem ci jàkka yi saa yoo déggee nodd am na barab yoo xam ne soo fa dëkkee soo demul ci jàkka doo dégg noddu kon nga jéem a dem ci jàkka ngir nodd ga fekk la fa ndax nga mën a ñaan balaa ñoo liqaam boo déggee nodd moo xam ci jàkka ji nga ne wala ci biti nga bañ a soxlawoo leneen lu dul jaamu yàlla nga dem jàppi eh, def li nga war a def pour préparer julli gi diggante boobu ba ba ñuy liqaam nag yonentu sallallahu alayhi wa ne ñaan gi nga tàbbal foofu yàlla du leen rejeté yàlla du ko rejeté saxaaba yi nag ñoom dañoo yeewu woon yeewu yàlla ndax tooguñu rek di ñaan seeni soxlay àdduna te xamuñ ndax moo gën a mu gënut dañoo laaj ki yàlla xamal ne ko lan la ñu war a ñaan mu ñaan leen aafiya lépp looy ñaan rek dugg na ci biir aafiya soo ko ñaanee ba noppi nag soo la neexee détail boo amati nga dugal ko ca yàlla nañu yàlla may aafiya ci àdduna ak ci àlaxira sallallahu ala sayyidina muhammadin alihi wa wa sallama amin. Thanks for watching. If you liked subscribe to our channel. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci mi ak ci bitim réew.